rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 18 septembre 2020 ñu ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy tey doore ko yëglikaay bi nag dafa ñëw ci ñeenti mbër yoo xam ne tey moom la ñu woon ci xëtam mu njëkk muy Gris Bordeaux Balla Gaye numéro 2 Modou Lo ak Eumeu Sène yëglikaay bi nag ci gëstu Abdoulaye Dembélé la mu xëy tey gëstu maanaam lu bees loo xam ne dañ ko indi ci làmb loo xam ne yàggu fi muy mbirum pay maanaam ay code yoo xam ne daal dañ koy jaay moo xam ku ne bitim réew la wala ku ne fii ci réew mi ngir nga mën a seetaan ñu koy wax pay per view yëglikaay bi nag loolu la xëy tey gëstu indil ñu ko ca la nga xam ne ni combat bu ci ne joxe na ko ci ay recette yoo xam ne ni indi na ko ci ab xaalis sunu làmb xëy defal ñu lool ci gëstoob Abdoulaye Dembélé bu nu commencé nag combat ba nga xam ne moo ca njëkke woon muy diggante Balla Gaye numéro 2 ak Gris mu mel ni booba combat Luc Nicolaï moo fa jaaroon bañ ko pay-per-view bañ ca jógee recette ya daal yëglikaay bi dina toll woon na ci juróom-ñett fukki millions maanaam quatre-vingts millions daal yoo xam ne nii pay ba génne na ko ñu ne deet waay ñu ñëw ca Modou ak ki nga xam moo di Balla Gaye numéro 2 boobu combat itam pay génn ci ab xaalis toll na ci 60 millions maanaam juróom-benn fukki millions moo ca génn Modou Lo Eumeu Sène booba itam dañ ko mujj woon PPV wu waaye bañ ca jógee tamit la mu jot a indi ci ab recette maanaam fukki millions ak juróom la 15 million la ca. ak lañ ca génnee beneen combat boo xam ne dañ ko pay woon muy Boy Niang Lac de Guiers boobu itam 15 millions lan ca jëlee Tyson 2 Gora Sock 1 million la pay-per-view ba génnee ka nga xam ne nii nag moom moo yore booba mooy Ibrahima Faye bés yëglikaay bi nag ñëw na ci secret ya nga xam ne nii moo waral réussite yooyu am ci yooyu combat ak la nga xam ne nii moom la ca pay-per-view ba def ka ko gëstu tey nag du kenn ku dul ka nga xam ne nii moom moo di Abdoulaye Dembélé ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ba tey bu ñu c ci yëglikaay bi nga xam ne sunu làmb combat kii moom combat am ñëwagul bañ koy pépéru muy guy gi waaye li am ba des daal yëglikaay bi ne dama koo tiital de ndax nag li tax ma tiital ko nee na lenn la ka nga xam ne nii moo ko daan tàggat di kilifaam nekkoon kilifaam loolu di entraîneur am di Mor Fadam yàlla sunu borom bi jël na ko ci kàttanam ñu ne déet ne waaye ab sëriñam itam ka nga xam ne nii daan na ko ñaanal guy gi yaakaaroon ko ci lu baree baree bari kooku tamit sunu borom bi jël na ko moo tax yëglikaay bi jàpp ne daal li am ba des day guy gi ndax jëmul ci danse ci combat bi ndax ñaar ñooñ nga xam ne nii ñàkk na ko moo tax sunu làmb daal tiital ko ci combat bi nga xam ne ci la jëm ci digganteem ak ka nga xam ne moo di Reug Reug ba tey bu nu continuer ci fa nga xam ne nii moom moo di yëglekaay bi na tey ak ñun ne nii moo di CNG ba ba tey rek ak coow ca am kuy jël place ba ku ko dul jël Mansour Diop numéro un moom dëkk ca Pékin di am mbër wala boog mu nekkul fi am mbër moom nee am na ñu bëri ñoo xam ne daal bëgguñu Tyson maanaam daal ñëw ñu ci mbirum Tyson ak taxawaay ba nga xam ne nii am ko ko cay tudd maanaam daal Mansour ñëw na ca maanaam daal jàpp na ne contestation ya bëri na ca waaye yemu ca de moom Mansour Diop ñëw na tamit ci la nga xam ne nii mooy ministre ba ak ay suwaamam loolu yëpp ñëw na ci moom Mansour Diop am na lu bëri loo xam ne daal wax na ko te ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb seq waxtaan woon nag ak Abdoulaye Dembélé yemu ca nag arène nationale ba Mansour Diop ne na war nañ koy joxu tur ñu ne ko wan tur lañ koy jox mu ne tur ko war a jox mooy a tudde ka nga xam ne nii moo di Mansour Diop la leneen loo xam ne nii wala ba tey mbir moom buñ ca continuer mbirum CNG ba ka nga xam ne moo di Doudou Diagne Diecko moom ginnaaw sunu làmb dafa génnoon def benn micro trottoir maanaam boog wàllum sondage amateur yu bëri jàpp ne daal na di leeral ne li am ba des daal tey suba waxi noppi te itam nag souteniruñu kenn maanaam nekkuñu fi naan diw mi la ñu jàpp ne wala kële Doudou Diagne Diecko moom loolu la xëy wax ñeneen ñoo xam ne ni yëglikaay bi xëy na ci ñoom dëgg ñooy waa Caaroy Cap Vert seeni combat jot ta waaye combat yépp moom dan koo gañee yëglikaay bi suñu làmb xëy wax na ko trois combat trois victoire moo tax suñu jàpp da cay dem ci moom waaye moom moom amoon na combat waroon ko bëre fa nga xam ne mooy ca Linguère mook Valdo waaye jotu koo bëre moo tax yëglikaay bi jàpp na met moom xaar ba tey mu koy def ko nga xam ne moo di Valdo keneen koo xam ne ci écurie ba la nekkoon daan ko gis muy bëre wala bokk ñu xaman ko fa bu baax a baax wala ñaari mbër muy Treize Nder numéro 2 Treize moom mu ngi États-Unis toog sa 221 itam foofu la nekk waaye moom ne nañ daal Guinée la dem toog keneen koo xam ne nii wala yeneen xale yoo xam ne ñoom tooguñu ci écurie a ñu ngay bëre muy capitaine ak ki nga xam ne mooy Pape Kane numéro 2 ak frère de Reug Reug tamit gis nañ ko ak booy hydrobase mu mel ni ñooñu daal soo bëggee dégg-dëgg moom mbir ya ñoo ko assuré yëg likaay ba xëy na ñëw wax ca Ahmed Deme tamit xam le ne daal li am ba des daal maanaam combat yu bëri yi moom doon na neex trop trop ci seen côté yëg likaay ba xëy ñëw wax nu ko Iba mécanicien moom que mu xëy dal ci koom di ko mooy Ibu Dacia Iba daal nee na ko moom li am daal ragal ko daal la def moo tax daal xëy na bëgg a retourner li nga xam ne nii moo di avance ba wala mu bëgg kaa delloo maanaam daal loolu Iba mécanicien xëye tey dal na ci kaw Ibou Dacia dal yu méttee méttee méttee ba ñu fa jógee nag record la ñuy xëy jubaliwaat fa record moom bu nu fa yeggee lañ fay fekk mooy diggante parcelle ak la nga xam ne ni moo di géejawaay lansaar ba Pikine daal mu mel ni foofu moom loo ci mën a dégg bu saison bi ubbee tàng moom dana ko def jër jër ndax Modou Lo ak Ama Baldé mu nga fa di bés boo xam ne mu ngay xaar te nekk na combat boo xam ne daal reef la ci amateur yi combat bu nar a méttee métti ñu ne déet ne waaye ba tey parcelle lansaar ka nga xam ne nii moo di Siteu ak Papa Sow booba combat itam nekk komba boo xam ne njërndéem la war a mën a doon garga numéro 2 wala boo nga xam ne nii moom moo di Sa ak garga mboose ba tey foofa itam day ñu ngay nekk muy combat boo xam ne itam daal bu bëggee dégg dëgg combat bu nar a metti la ñu ngi koy xaar ñu ne déet na waaye Franc ak Tyson moom itam mu nekk combat boo xam ne ci coow yooyu ca la bokk mel ni kon daal la ko commencé parcelle jàpp géej waay dem lan saar ba Pikine daal fu nar méttee métti lay doon keneen koo xam ne ni moom combat waxoon nan ko ba tey muy xaar muy Bombardier mbirum avance daal bu bëggee dégg dëgg daal daa mel ni ñu ngi koy xaar foofu ba tey waaye Eumeu Sène moom silence daal maanaam daal daa mel ni noppi ga moom mu nga ne ceel rek jàpp boppam ñii moom bu bëggee dégg dëgg ci li simple bi ren nañu ñëwele yëglikaay bi ñëw wax nu ko mooy ka nga xam ne nii mooy usine doole ak Adama Diouf yëglikaay bi di record daal xëy na taw ñëwal ñu ci ñaar ñooñ ak la nga xam ne nii jot nañu ko am ren mel ni kon daal trois gala daal boo bëggee dëgg dëgg daal daa mel ni ren ca lañ leen jot a gis ñaari mbër yooyu nga xam ne ay mbër yu mag a mag lañ ci lamb simple ji muy usine doole Saliou Cooma Joomaay Diouf Adama Diouf Mamendis adversaire wulli waaye bu ñu continuer dama fay jóge nag dellu fa nga xam ne nii moom moo di sunu làmb suñu làmb nag ñëw na tey dina fàttali ka nga xam ne nii moom moo di Ibrahima Faye Beuz mi nga xam ne daa ñàpp daa ñàkk waajuram bu góor bërki démb ñu koy ñaanal yàlla waajuram boobu yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana mu mel ni kon nag moom góor googu ancien inspecteur u impôt domaine la woon kon daal Pape Ndiouk Faye moomu di waajur Ibrahima Faye Beuz na ko yàlla yërëm te xare ko aljana yàgg ma salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi ngeen ko xamee nag tey dañuy ñëw ak yéen rek xam nga si jàngat bi comme ni ngeen ko xamee après revue de l'arène bi du mën a ñàkk jàngat bi nag tey fi ñu koy njëkk ginnaaw bu ñu leen nuyoo ñaanal leen jàmm te saako ko ci yéen fenn la maanaam sunu làmb tey dafa ñëw ak ñun si pay view boo xam ne nii jàpp na ne maanaam daf di daf tey ab gëstu ki ko def di Abdoulaye Dembélé ak li mu indi ci xaalis ci combat bu ne boo xool nag combat Gris Bordeaux ak Balla Gaye moo cëppoon xaalis ndax boobu yëglekaay bi xamal nañu ne 80 millions moo ci génnee bu dee Modou Lo la génnee ki nga xam ne ni moom mooy Modou Lo ak Eumeu Sène 15 millions Boy Niang Lac de Guiers millions combat bi ci gën a néew la nag lu mu génnee su muy moom mooy combat wu Gora Sock ak Tyson de mu mel ni kon pay per bi lu am am solo la si làmb buñ ko xoolee parce que bi ñu koy indi dama naan euh, biñ ko jëkkee déclaré dañ naan ñu bëri dañ ne woon loolu mënta ne parce que ku ne xam na ne tey nga ne nit ki jëndal benn code code boo xam ne ci ngay seetaane combat Balla Gaye de Modou Lo combat xam ne ci nekkoon na loo xam ne lu xaw na ëlëm Sénégal yi waaye nag wax na nga xam ne moo ko initié woon ndax ba muy am man maa ngi woon ci biir mu Ibrahima Faye Beuz moom moo initié woon loolu andi ko bi mu ko indee nag jafe woon na waaye defe naa ne itam nu nekk na apport boo xam ne ci promoteur yi amal na leen njëriñ ndax combat yooyu bu ci ne ñu ne la génn na lii ci tant de millions yi defe naa ne loolu loo am am solo la si promoteur comme dem nañ ba sponsor xaw a raar jafe ah taal nag olof ne na bu tëyee tàkk côté bu ne lañ koy uppee moo tax bi bës ñëwee Luc Nicolaï moom moo nekkoon premier promoteur bi nga xam ne moom moo njëkk nangu ñu def def ko ñu liggéey ci ak moom mu am ci réussite totale après nag par la yeneen promoteurs yi ñëw ñëw def nañ ko au moins moins boo xoolee tey lu mat juróomi combat yoo xam ne tey pépir bi mu ngi koy def te jàpp na ne luy continuer la kon tey même ak corona bi sax warees na mën a xalaat ci pay per view ak nees ko mën a defee parce que loolu lépp ay nit a koy def te tubaab yi pour man li ñuy def sénégalais am nañ xam-xam boobu pourquoi doomi sénégal yi mënuñoo gëmante ñun suñu biir ñu ñu ñu jëm a exploité li ñu loolu parce que loolu bës def tey ba am promoteur yu ko exploité ba gis ci njariñ dafa a continuer dem ci leneen ak yeneen ak yeneen ne nii euh, xam nga a am recette wala nangam sàng muy la am am solo daal pay-per-view bi démbe la ñu koy jaar ci gëstu boobu nga xam ne def na ko waaw yëglikaay bi tamit ñëw na tey ci mbir moo xam ne nii mooy mbirum guy gi ak ñu ko xam ne ko daan jàppale ku mel ni Mor Fadam ku mel ni sëriñam daan ko ñaal te mu ñàkk leen moo tax yëglikaay bi ne da ko tiital ci combat am bii di ñëw ak rëg-rëg ah dama naan nag loolu mook àddinaa ànd kullu nafsin saay xatin mawtin la yàlla sunu borom bi wax fa kullu man aliha faniya maanaam ku juddu da nga faatu yaa ngi dégg te itam lu tooy da nga wow kon nag li ci des mooy ah ki fi jógee saa yu fi jógee bàyyi la fi yow borom bi am na lu mu la fiy bàyyil kon defe naa guy gi tey dama naan même bu ñooñu demee yàlla leen yàlla jégal te xare leen aljana itam yaakaar naa waru ko mën a déstabiliser donte bu sañoon bu gestoo gis leen ci ginnaawam ndax ku ne xam na ne Mor lu bari def na ko ci guy gi ci wàllu bëri ci wàllu làmba ku ne xam na ne sëriñam itam ku mu daan dékki loxoom la waaye nag bu wéyee lañ ko daan jox ndigal lañ ko daan jox xam na ko te bu ko jëfee pour man du war metti yaa dégg loolu laa ci wax parce que am na expérience u làmb moom guy gi mbirum CNG tamit ñëw nañ ci Mansour Diop wax na ci làmb arène nationale dañ ko war a tudde Fodé Doussouba ma ne ko waa loolu lu mën a nekkal parce que Fodé Doussouba ku marqué empreinte am la ci làmb ci ñuy fekk génération ak li ñu net li si moom waaye dañ naan itam valable tamit ak ñëpp ñi jëddu jour bi ñuy teg pose première bi mu nga ca arène ba toog te defe naa teguñu ca lu mat semaine yàlla jël ko kon ku ci ne dama naan mérito nga ko waaye nag dade bu ñu la laaj sa xalaat faw nga wax sa xalaat Mansour Diop loolu la def te itam defe naa ne loolu am mu am droit la sunu lam itam démb bi génnoon benn micro trottoir benn reportage si mbedd mi laaj amateurs yi ci mbirum seen seen njiit li après Aline ñu Euh, ki ñu àndal moom mooy Tyson loolu nag lañ def démb bi ñu ko defee tey nag du jànjee ko xëy na génnaat ci journal bi di leeral moom nee na ñoom amateur yi ci ñi mu jiite moom voté kenn ànduñoo kenn souteniruñu kenn ñoom daal ñu ngi toog di déglu ki ñuy ñaan daal mooy ki ñu fi indi na doon ko mën a yore làmb kon dudu moom mu ngay setal boppam loolu la wax tey ci yëglikaay bi écurie Thiaroye Cap Vert ñoom rëg-rëg trois combats trois victoires lañ jot a def ci ay sorties dañ koo gagné muy la am ñu di leen félicité donte Reug Reug bëréewul Treize Ndir mu ngi États-Unis appartement 221 mu am na seen bopp ñu di leen félicité ci liggéey boobu nga xam ne ñoo def même Ahmed Deme may tëdd fil ba sax mu ngi doon xaar ko moom Valdo ca Linguère mais mujj ko bëre mais nag yàlla na corona bi dem ba yëpp mën a yow bëre mën a compétiraat yaa ngi dégg loolu la ñuy ñaan bu ñu demee record nag lañ fay fekk mooy mbirum li nga xam ne mooy diggante parcelle Géejawaay pikin ak fa nga xam ne moom mooy Lansar combat yi mbër maanaam boo xoolee foofu combat yi bëri na fa amaa Baldé Modou Lo ci la bokk Siteu Papa Sow ci la bokk Garga 2 ak ki nga xam ne ni moom mooy Franc ci la bokk bëri na ay combat yoo xam ne nii ñooñu seq nañ ko ci axe boobu muy loo xam ne nii daal ah li ko waral nag dañ naan euh, ba tey sax marle waaw marle ak ne kuréel loolu lépp ci diggante boobu la li ko indi nag lenn kese la dama naan lamb ji sama gis-gis dafa entre boo demee ba parcelle jugu géejawaay dugg Pikine ba ngay dem ay lamsaar continuer ca kaw lamb ji pour man li ci ëpp ci mbër tey dafa toxu dafa nekk côté boobu li leen ko may nag li ma alaaji Papa Dieng ngi foofu din yaa ngi foofu parcelle dugg si dakaar yaa ngi dégg génn Grand Yoff bëgg dugg si foncé ñëw foofu te espace yu bareetul par rapport ak fee ni mu mel xëy na foofu géej a fi des te géej gi la fa des te bëreetul mais bu dee banlieue bi nag moom ba ba ngay dem ba Lacrosse ba continuer jëm waay <laughs> waaw dëkk yu sori ba ba moom daal ah, foofu din yaa ngi foofu romb lagros continuer foofu yëpp ay din la lépp kon loolu moo tax mu pour man ñoom itam boo xoolee combat yi demee noonu mbëri ya ëpp fa ñuy wax nag combat yu yëpp ci diggante géejawaay Pikine Lamsaar ak Parcelles yàlla na si yàlla def rek ñu bëree ko que le meilleur gagne parce que làmb noonu rek la baaxoo record tamit ñëw na ci mbirum Adama Diouf ak Saliou Diomaye Diouf mu mel ni ñaari njuufeen yooyu li ñu war ci lutte bi daaw bëriwul wala saison bi jeex nii mais nag dama naan ñoom am nañ mérite parce que yàgg nañ leen xam ci lutte ñu ciy def lu am am solo te ba tey ñu ngi ci continuer di ci yëngutu ku mel ni Adama nekk mbër bu safa saf xorom macha allah am na combat sax moo mag wuli yaa dégg ñuy ñaan yàlla yegg ci bés boobu tamit que le di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di jàmm gi ñu jëm yàlla nañ ci dugg bismillah rahmaan rahim génn ci alhamdulilah rabbi alamin gàmm gi ñëw tamit ñu passé ko noonu ci barke yonent bi sallallahu alayhi di wax ne Sénégal réewum jàmm la yàlla yàlla yokku jàmm ji ñaan defal ko àddina bi yëpp la suma lépp la muy Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax sëñ bi di la ñaanal jàmm waa di wax ne kooku suñu lépp la waa di ko ñaanal jàmm bu baax a baax di ko ñaanal soxnaam ak njabootam ak famille yëpp mais di ko ñaanal kull kuy doomu aadama rek yàgg la nuyu di la ziar di jàmm di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñu suivre fu ñu mën a nekk rek ñu leen di balu àq bu ñu juumee xam leen moo matul waa Petersen moom du ma leen mos a fàtte maa ngi leen di bégg bu baax a baax Jib Sène Babacar bu la Lama xam nga Omar bu Zos ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee Cheikh Lambaye du leen mës a fàtte ak Mor Diouf am leen jàmm yéen Aliou bu yankaaw tamit ca marché Thiaro yi moom sama soppele suma xarit la a baax a baax di doomi ma dëkk ak yaay te ku xam ak yaay xam Mbomboy ku xam Mbomboy xam ak yaay parce dëkk yi benn la Aram Ndiaye tamit maa ngi koy béggee maa ngi koy béggee bu baax di doomu Bawol dëkk dëkk bi ñuy wax tàlleñ ci ngi koy béggee bu baax a Aram di ñaanal jàmm ju bari bari barke yonent bi sallallahu